saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa jàkkaarloo ba war dox ci diggante Papa Sow ak Siteu foofee ci stade Marius Ndiaye bile combat képp kuy amateur jàppal ne dina am le 5 avril bi ñu dëgmal ñi doon am njàqareeg tiit ndax ñàkk a régulariser bile combat dama ne bu ngeen yeboo fecc leen ñi njortoon ne bile combat danañ ko fomm le avril bi ñu dëgmal bu ngeen yeboo xalaat leen leneen mbooleem ku xalaatoon ne Pa Abdou Fall dana régulariser bile combat booye boo xamal ne lanc na sab lanc xaar bi yàgg na laaj bi yàgg na bind mi yàgg na ku ci nekk naan kañ la ñuy régulariser bile combat Pa Abdou Fall def na ko démb démb ca CNG la ñu daje ñoom ñett ñi waral coow li manager Siteu Maxime ko jàpp tey ci stade Marius Ndiaye à partir de 16 moo waral journal ba xëy ni jàkkaarloo bii daal si la guerre des mots Siteu ku ko xam-xam ko ci innovation ak dajji lu bees ci ay innovation dégg nañ fi àllu paaya dégg fi doo cent francs ak yeneen yi ni mel làmb ak amateur li ñuy xaar mooy lan la tarkindaa bi di indi tey Papa Sow mi nga xam ne yaram ak tegginam moo tax mbër mu muy dajal nga jox ko respect xaw ma nan lay def ak Siteu tey tey ci stade Marius Aziz dana mel ni tuq bënn saañ ba réer Pa Abdou njiital Paf Production gannaaw jàkkaarloo ba diggante Papa Sow ak Siteu dafa am leneen lu bees lu mu ci soow lañ ko tuddee artistes ya fas yéene caa wone seen bopp ku ci mel ni Pape Diouf ak Ngaaka Blindé ak yeneen i artistes danañ fa daje lépp ngir bégal amateurs yi joxe avant guuba waaye bu ñu dellu ca la waral ñàkk a régulariser beeg yéex a régulariser bi na ci canam gën a yaatoo la mu xamle mooy ba ñuy taxawal bile combat Papa Sow Papa Sow taxawal écurie bu bees ku wax écurie bu bees wax récépissé ci loolee la ñu nekkoon ba ñu noppee ca récépissé ba faaw ñu def affiliation Papa Sow déposé licence ñaar yooyee ba mu féetee boor nag la ñu ne liy jot jot na ngir ñu régulariser bi le combat ñépp xam ne le 5 avril combat bi dana am la ca Pa Abdou Fall dolli mooy dalal xelu amateur yi moo waral li ni mel waaye mënoon bàyyi ba mu gën a jege ma koy doog a régulariser waaye li am ba des mooy combat ba officiel ko Papa Sow ak waa Fass yile kaddu tukkee ci père ba kenn njortu ko wax ba ñu nekk ci jàmbaar wrestling academy danañ bëreeg waa Fass la mu ca xamle mooy Papa sax bu gisoon avance waa dana ko jël man père ba li ma leen di wax jàpp leen ko takk leen ko téere Papa Sow promoteur bu bëgg digganteem ak waa Fass ko xaalis mu bëreeg ñoom ñu ne ko ndax Papa Sow Gris Bordeaux combat la mu ne bàyyiwu fa kenn mboolem mbër mu nekk Fass bu ñu fayee xaalis danañ bëreeg moom bu ñu jàllee ci revanche ba waroon a dox ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène ñàkk am a leer mooy njortu ne combat bi dana am ren bi les jeexale mooy point de presse ba waa CNG di presse le 24 février yemboog altine foofee ca maison de la presse lañ fas yéene amal bi le point de ngir leeral lu bëri njort nañ ni génn yi Yékini génn wax ci CNG dana bokk ca waxtaan wa leneen lu CNG ngànkoon dana ko yàbbi ca jour boobee jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah